Euh, démb ci guddi mujj naa déggoo ak mujj naa am adversaire bi nga xamante ni mooy bëre Pokola ndax ñoom ñaar mi moom mi doxoon nañ ba mu sotti ba waxaale woon ba juboo mais xëy na peut-être tamit xam nga marchandise rek da ngay waxaalee fii fekk fee lay doxee wala kii mooy bëgg yàlla dogal na ne am na benn adversaire loolu tax mu ñu mujj koo bàyyi mu dem ñibbi gannaaw am na adversaire ñu bàyyi ko mu dem ñibbi ma bëgg waxtaan ak moom euh, ci carrière am parce que moom tamit bi mu daane bi bi mu amee ndam ba léegi combat am dafa xaw a yéex ndax combat ma Pokola depuis daaw xaw ma boog euh, man avant muy bëre bi moom Dame Sougué ba léegi ñoo ngi koy dox Dame Pokola nag nee na ba muy bëre Dame Sougué moom mi ma woon moom tamit dafa daw xaw ma lu lu lu ko dugaloon ci mu daw ba mu neex ko mu ne nangu na ma bàyyi ko mu nuyoo ñu doo a wéyal waxtaan wi noonu te nag foofu du ma bàyyi sax mu nuyoo li muy daw daa bëri ndax moog Sa Thiès bu bu bu kii bu caaree tamit fu ma fu mu tànnanteeg man ne ma booy sa booy bi daa daw sa booy bi daa daw Ousmane lan moo tax Bébé Garga lan moo tax ngay delloo avance su jàmbur yi deux avance dégg naa ne da nga delloo sa diggante ak Sa Thiès da ngaa delloo avance. Mm. sa diggante yàgg Pokola nangu ba ci biir nga delloo avance ba mu la nga doog a nangoo la moo tax delloo avance boo nuyoo ba noppi nga tontu ma ci loolu. waaw Ousseyn auzu billaahi mina seytaani gannaaw bi ñu sante yàlla julli ci maa ngi sant suma ñaari waajur di sant suma yaay suma papa ak suma mag yi ma nekkal mm. ak suma staff ñëpp continué continué di sant ñëpp. Mm-hmm. di ñaanal suma ñi nga xam ne ñoo dëddu àdduna suma maam ak suma nijaay yi dem di ñaanal aussi Kiné Gueye moom la ñu rayoon Pikine. Mm-hmm. tout près sama ginnaaw mm-hmm. gàlle. ñoo ngi koy maa ngi koy ñaanal. di ko ñaanal fa mu yàlla na gënal fi mu jóge. yaayu maam Mor tamit suma suma suma yaay sax mën naa ne. moom tamit dafa génn àdduna maa ngi koy ñaanal. Euh, Ouzin ñi nga wax ñoo ñëpp daw ma seen avance. Mhm. xam nga lu man nag waaw dama lay wax benn affaire man wutal ma adversaire day jafe. lu tax li at li mbër yi bëgg man du ma ko def. yaa ngi si ñaari combat sax. parce que man xam naa ci combat yi nga toll mais ñi nga xamante ne ñooy seetaan ci ñaari combat nga toll. Ouzin barke alxuraan dix combat laa bëri. dix combat barke alxuraan benn défaite laa ci am benn sans verdict te sama combat yëpp gis nga ni mi demee bu ma ñëwee mayantew ma dara li war dama koy def musuma simee ko ñu ne acam ñan ak ñan nga daan daan naa Ahmed Dem 2. maa ko daan Baba Yo. Mhm. Boy Jolof carrière. Mhm. carrière benn bu bawal waaw. Mhm. caatu waalo moo ma daan. caatu waalo bu géej waay. waaw kii la sans verdict bi maak Mottin la. Mottin bébé Ama laa mujjee daan. Mottin mooy mooy mooy mooy Modou Body xaw ma. waaw Modou Body. waaw mooy di combat waaw. mais lan moo sa combat dañuy dégg taxaw na wala combat yi promoteur yi sooy nañ ñu dem ba ci bii mu yàqu bi ci ndëkk mooy sa diggante ak Sa Thiès parce que Sa Thiès da ngeen dañoo dañoo def affiche yi. Mhm. ba ngeen war a bëre ñu ne combat bi taxaw na combat taxaw ñu jékki-jékki ñu ne xaw ma bëree tuloo man daal comprendre ma ba ñu mujjee dugal booy Sadio. dinaa la jox foofu dinaa la jox foofu lu yomb. maak euh, Sa Thiès bu Thiaroye la n'est-ce pas. waaw taxawul. mais dama gis ñu monté affiche bi. xam nga est ce que xam nga ne affiche bi bañ ko monté. Mhm. man dañ ma wo téléphone ne ma dama gis sa affiche ci net bi. ma ne leen man ñu ne ma waaw. ma woo sama ménagère di wax ak mu ne ma non xam nga booy na ma ne ko. yaakaar naa ne ménager bi bëriwul. Mhm. man maay bëre. am na wala amul. Mhm. kon ménagère bi balaa moo dugal benn combat di ko taxawal am na droit wax ak man ba pare. dafa affiché combat am waxuma dala ay nit woo ma fu ne mu ba moom xam na ne yëg naa ne affiche baa ngi dox woowu ma ko lijjantiwu ma mu toog ba xolam sedd woo ma ne ma yaa Sa bu caaroy lañ la bëgg a jox nangam ak nangam ma ne ko bëréew ma ak am naa ci droit. Mm-hmm. seen équipe laa dugg fekk fa Ahmed dem 2 moo fa gën a ës. Mm-hmm. ma jàpp ko dama ko duma daan ko. dama ko bëree mais booy tamit ës na de. dama ko bokkuñu. non booy boobu ës na de. ba may bëreeg oh, Ahmed waaw ba may bëreeg Ahmed Deme 2. ba may mm-hmm. dafa jógee ci tournoi jël jël jël ko. Hmm. ba ma demee CNG di signé xam nga lu ñu ma wax yaa ngi bëre mbëru ki mbëru mbapat la mbër mu ës ngay bëreel ma a leen yàlla baax na hmm. barke alxuraan ba ma ñëwee ñëpp gisalaat nañ làmb ji maa moom dañoo bëree vingt cinq minutes ba làmb ji desee une minute laa ko te dañoo xeex a xeex ba mu lang hmm. kon promoteur du taxawal combat am ba pare sama ménagère dox li muy dox ba pare lijjanti xaalis bi ci suuf ba ñëw bëgguma woo bëgg ma teg di man du ma doxee noonu parce que dem naa ba mu wax ma ma ne ko li ngeen ma fay du ma bëre xam nga lu ma wax boo ñe nangoo ma jël sama xaalis moom ménager bi yokkal la ci. moom ménager bi wax ma xam ni kon li mu li ma wax noonu li ma wax noonu liñ ko tegal moo ëpp kon day jéem a dox sama kaw du ma doxee noonu Ouzin Ouzin man su man damaa am ay wayjur. Hmm. dama am yaay am papa. Hmm. man magum ponkal mu toll ni man warumaa xëy suba tiim sama yaay naan ko aw ma ndékki wala aw ma nangam. Hmm. doxew ma noonu. waruma bëri tamit ba pare. Mm-hmm. ñu ñëw fekk ma ma toogee po ay main vide. sa xam nga te suma combat ku ne xam na li ma ci nekk damay jël xaalis bu weex tàll def ko ci làmb. Mm-hmm. amul promoteur bu ma ciy balaame. billaahi wallaahi. Mm-hmm. sama combat maag Modou Bodi. ménagère woo ma ne ma yow yaa tax ma mën a fay yeneen mbër yi ma ne ko ndax lan mu ne ma li nga jënd ci bolog bi. Pokola mi ngay wax promoteur bi ñëw na suñu kër. Mm-hmm. ban ba promoteur bi génnee woowu ma la. Mm-hmm. bi ñëw na suñu kër wax ba pare. Mm-hmm. ñu jox ko suñu accord ne ko nangu nañ. waaw avant promoteur bee ñëw suma gàlle gàlle Pokola la njëkk. barki yonenti yàlla Mouhamed li may wax du dëgg yàlla bu ma yegg fu ma jëm. gàlle Pokola la njëkk. Pokola jël téléphone bi naan ma boo jëlee avance bi ba droite bi dal la ma ne ko Pokola mu ne ah, ma ne ko ñi lay ñi ngay dóor ñi ngay xeexee benn loxo ak ñi ngay dóor ñuy daanu man duma ci bokk mu ne ma ndax lan ma ne ko man bu ma taxawee ci làmb xam naa fi may taxawee xam naa fu kuu di jóge xam naa fi may faxaseeku ndax du ma ngaaka ci làmb mm-hmm. fekk boobu njëkkoon nañu dox yi sama combat ma ak Jacob Jacob Balde Jacob Balde avant moo jël papa booy jinne bii mm-hmm. muy dof dof lu naan xamuma mm-hmm. Jules Balde promoteur bi dem fa wan ko sama photo Jules Balde ne ko ndax xamoo kii ne ko yaa ko gën a xam Jules Balde parce que Jules Balde ba may bëreeg Mod Mod nañu ba combat mi Jules Balde woo ma di ma conseillé. Mhm. Jules Balde ne ko xam nga ko bu baax. Mhm. man làmb du yàqoo ci man bëre mooy suma métier moom laa bëgg. ndax man xam naa ne bu ma jógee ñëpp jóg mais bëreeg man du neex xam nga lu tax. li mbër yi bëgg du ma ko def. lu bëgg. taxaw di léewtoo di négocier déedéet man bu arbitre ne prix loo fa tegoon dama koy jéggi ñëw ñu raayante. aw ma temps wu tardel benn amateur ci làmb barke alxuraan du ma ko def damay jéggi ñëw ñu rayante même bu dee da nga may dóor nga ma daan damay ñëw. bu la neexee na nga tapé sumay combat bu arbitre ne prip combat yi ma bëre yëpp bu arbitre ne prip. maay dagg jéngi mais combat bi lan moo taxaw lan moo tax mu yéexoon taxaw parce que promoteur ma ne ma dem na ci ñaari camp yëpp. promoteur bi avant avant avant avant comme avant moo ñëw ci man woo na ma téléphone ma jox ko sama accord bu yàgg xam nga lu ma ko wax ne ko heure boo paree pare na mu ne ah, ma ne ko dama laa jox suma accord ma jël beneen làmb bu dul yow mi ndax yow rek laay déglu. Hmm. mu ne ma waaw ba làmb ji jeex ba affaire bi jeexee mu dem dem gàlle Pokola Pokola jël télé téléphone bi promoteur bee ma woo Pokola jël téléphone bi wax ma tontu ko. Hmm. mu ne ma jël avance bi ma ne ko barki alxuraan bu ko fi indee du yendu dama gis sànq bi mu fi ñëwee yéen ñaa ngeen dëkkante mel ni gën a affaire bi ngeen dëkkante mel ni da ngeen xiifante yéen ñaar. da ngay jóg pogalaat ñu wax ba nga naan kaa ñu wàcc sax ñu jëflante ko. barke alxuraan bu mu leen téyewul woon xam naa da ngeen. wàcc barke rasulullah te bu ñu wàccoon fii mënul ci man ñaari mali. pogalaat li muy jaay mën naa koo jënd ba wisal ko dama koy maye man loolu muy jaay. barke Seydina Mohamed bu ñu wàccoon pogalaat li muy def booy yi du ma ko def moom xam na ne sax maa ko gën a doon ràncuñee fuuf bis bu ñu taxawoon dóorante rek dina xam ne ay ay ay loxoom safewul dafa dugg paasal jàpp daam su ko da koo dóor ba mu waaw erreur am ci làmb maanaam Dame Souker bëree na erreur. Mhm. ndaanaanu làmb la nag bëree na erreur mais dama lay wax benn affaire Ouzin ba nga dalee bëree ba tey mës ngaa gis ñu ne bébé garga nañ ko du may metti ci làmb. gisaguma ko du am waaye waaye Pokola mi mën na ko de. barke Serigne Bamba du am mais mal tax Ouzin man damaa def aar ba pare doo ko dugg ci làmb man damaa def aar xam ban côté laay taxawee ci làmb ak ban côté laay dóoree ba pare doog a ñëw dugg ci biir làmb kon duma ci ngaaka mais Pokola li muy def booy man du ma ko def ay amoo ñaan ak yooyu ñoom moom amul ñaan xam nga ko am ñaan ku yàlla dimbale rek ndax yàllaa fi ne. kenn amul ñaan mais bis bu taxawoon barki alxuraanul karim bu ko neexoon ñu wàcce bu ñu wàccoon fii dina xam ni dese naa mën a bëri. Hmm. Ousseyn nga ma man contact bu dul jeex man damay bëre ba ci biir suuf si jugaat lijjantiwuma nu waay toll. Hmm. mais nag adversaire yi ci boppam ñoo war a ba daw. adversaire yi dañuy bàyyi daw. Mm-hmm. mais fi mu toll nii fi mu toll nii su dul su dul su dul Pokola moom combat am taxaw na démb su dul Pokola ñan ñan ñan adversaire ñoo fi nekk yoo xamante ni. Fourier. Fourier ban. Fourier benn. Fourier bu Grand Yoff. waaw. Fourier fi mu toll nii daa mer de. lu tëntiwuma loolu. day gën a te xolal day gën a mer. Fourier kan. Jacob Balde amul komba Jacob amul combat. Fourier Jacob Baldé. waaw combat yi neex da nga am fi limal fi mu toll nii. Maguette Seck. déet kooku sama la bu dugg ci booy ñaar. lu may tax waay man ay copain. lamb amul xarit. gën gën sa la amul xarit. Maguette Seck. mais Maguette Maguette booy est-ce que xam nga yi Maguette Seck daan na leen. ba mu des kii kii moo gën a dëgër bopp ci làmb te booy yi mënaluñ ko dara. te heure bu dugg see ñu ne tubaab la mais bu ñu nee runkum loolu seetlu nga ko ba taay. Mm-hmm. ma duggee ci làmb ñu ne ah. booy bii de ak xeesaayam bi du dara mais bis bu ñu dajee dajewaat boo ñëwaatee da taxaw par boo ñëwaatee par la force laa wax da taxaw. ok. mënoo ci dara loolu. Tidiane Faye. non foofu moom yegguloo fa moom. mais Tidiane Faye fan la nekk Tidiane Faye nekkul fenn fu mu toll nii mi ngi ci suuf de. non Tidiane Faye Tidiane Faye moom muy moo bëgg kii. non la woon. moo daan Alioune Seye junior. Alioune boobu sax bu ñu ma ko joxee ma bëri moom. non combat yi mu neex na sa digganteeg sa digganteeg Fourrière neex na. Euh, Jacob Jacob Baldé neex na. Maguette sek waaw oh, Maguette Maguette de moom neex na. booy bu ci pare daal booy bu ci pare. nangul waa Baye booy bu ci pare man pare naa bu yàgg. barke alxuraan pare naa bu yàgg man mosuma préparé. Hmm. fi mu toll ñaari séance ngay def. maa ngi def ñaari séance. bu ma xëyee damay dem saal ñëw lekk ba suur tëdd nelaw cinq ma dem ma dem ma dun ñaari séance laa def. kese. gis ngeen mbokk yi tey Bébé Garga laa dalaloon ganaaw mook mook moo mook Pokola laa dalaloon gannaaw Pokola nag euh, combat bi taxaw na démb yëgu ko woon mais xam naa dinaa ko fi woo moom ak adversaire ñu toog waxtaanee ko ak ki nga moo ko tëgg muy Fouta production di ko jaajëfal bu baax a baax moom gis nañ combat yu mu tëgg combat yu neex yi muy taxawal mais fi toll nii naka naka naka nga gisee làmb. làmb neex na naqari na mi ngi yàqu. Hmm. waaw. Ousseyn man samay wax du neex barki alxuraan làmb neex na naqari na mi ngi yàq parce xam nga lu tax CNG nañu xam ne ñun seen seen doom lañu. CNG nañu xam ne ñun seeni doom lañu. ñun ñi nga xam ne làmb mooy suñ teraanga am àdduna du neex ba ñu yàq làmb. mais mbër mi mënta ñëw di bëre. di régler supporter bi mënta nekk. c'est que mbër bi buy génn gaaleem rek supporter yi lu leen neex la ñuy def. waxatuma la ak bu yeggee stade. Mhm. nga xam ne liberté la am ca kaw. Mhm. ñun leen rek lañ mënal supporter yi. mooy ñu bunge ñu ñëw rafet ñu rafetal bis bi jàpp daan dem ñibbi ñu kontaan. Mhm. est-ce que comprendre mais dafa am loo xamante nanu xam ne ñun seen rax ñun fay ñun dara ci làmb. Ousseyn imaginer nga ñu fay la benn deux cent mille nga bëre supporter yi def erreur. ñu dagg sa xaalis mu des deux mille vingt mille wala cinquante mille dafa neexul ci xool te mu am loo xamante yaa ko war yaa yaa ko res ñun ay soutien de famille lañ dafa am lu nu war barki alxuraanu karim dafa am lu nu war Ouzin su ma xaalisu làmb mosuma koo lekk barki alxuraanul karim su ma xaalisu làmb mhm. barki Serigne Babacar si mosuma koo lekk à part ñi nga xam ni ñoo ci jàpp comme Maymuna bi dëkk Dalifor maam say bite ak Abdou ab Abdou papa Abdou Faye xam nga faala meng ñi ciy jàpp bu dul woon ñoom laa la wax de. billaahi wala ak boo yi nga xam ne bu ma amee combat ñooy jël seen ñoom Ali Badiane jël seeni i ndugg ak yëpp indi teg maam Ngunda Fall Cheikh Thiam Cheikh Thiam mention spéciale kooku. barke alxuraanu karim lu may dugg lu ne da koy mu du woon ñooñu ñun ñun ñun kon bàyyi na làmb ba ba pare dem toogi def leneen. Mhm. làmb dafa métti. boo yi kenn duggul ci làmb nii pour maanaam ay affaire da wut tur amul sens wut tur. tur moom boo koy wut bu yàlla namee ne tur day am rek day am. Mhm. mais ñun ñëpp dañuy dugg ci làmb pour am lu mën a defal suñuy jur mhm. xam nga dafa neex nga toog ñu jékki-jékki ñëw seet si la. waaw mais ana maire bi nga leen moom da daa aji woon. dafa neex mais kañ ñun pour ñun kañ promoteurs yi liñ ñuy fay ñun munuñu cee buñ ci buñ ci génnee li ñuy li ñuy dundee li ñuy lekk sax ñun mbër yi buñ jógee entraînement barke alxuraan doo def dara kilifa yi ñu kilifa yi ñu jàppale ñi nga xam ne ñoo lay ñaanal ñoom dañuy ñaan te yàlla tax. Mhm. barke alxuraan ku ci nekk maam maam Ousmane bu Caaroy Ceerno bu bu Mbaaw Ceerno man damay ñëw mu mu defar ma li may defar pare yëkkati xaalis jox ma. billaahi wallaahi taala ma ne ko papa mu ne ma sama participation ci làmb mhm. kon kooku xam nga nekkatul kilifa. Mhm. kon kooku am na lu muy représenté ci yow. ñu bëggal ma seen bopp waa ñaaxar yi nag waa Fatick ñoom mënu ma leen fay ndax toujours ñu ma téléphone. Mhm. booy nangam ak nangam ma ne leen waaw chaque jour ñu fëgg si ma ndax am nga combat ma ne leen maa ngi toog di xaar. mais dafa neexul mbër di entraîné di xaar te gisul ku muy bëreel. booy nañu bàyyil dawante bi. Maguette Seck nee ko bu pare man pare na Fourier Fourier barki alxuraan bu ñu ma indiloon avance am tey tey tey. Mhm. du fi jugee te du ma ko lekk. ak Jacob. moom laa gën na bëgg sax. Mhm. waaw. soo amoon kàddu yu mujj looy wax. waaw kàddu yu damay santaat yàlla rek. Mhm. di julli ci yonent bi. di santaat suma ñaari waajur bu baax a baax. di sant suma staff bi yëpp Ousou Bébé Petit Mohamed Ahmed Ndiaye. Laye Rassa Rodo Ousmane Gueye Ndiaga ñoom Abdou Soulay gaa yëpp maa ngi leen di bëggee di di di bëggee ñiy jàppale bébé Garga yëpp nag bu ma limee rek damay juum wallaahi mais maa ngi jiital nuyoo bi di ko di ko di bëggee sama benn grand frère boo xamante ba ma ba ma tàmbalee ba tey moom la. Mhm. muy Zeus borom Brésil. Zeus ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. Zeus mooy borom Brésil moom ku mu mhm. mu ku mu kuy dugg Brésil te tàggu woo doo dugg. Mhm, loolu ndax moom moom Brésil. sa comprendre nga. Mm-hmm. di wax Ouzin gars yi nan ñoo ñu bëre. Pokola nag aw ma lu ma koy wax am na combat yàlla na ko yàlla defal jàmm. Mm-hmm. mais na xam ni kii toog du ragal. barki alxuraanu karim yeewu waalewu ma lool sax. Ouzin man coow dina am suñu koñ yëpp ba mu des suñu kër. Mm-hmm. ndax bañ nañ ba dañ naan kër gi ay dofa fi dëkk. koo fa xeexal bu amet génnee nga doyal bu petit génnee nga doyal man moom du ma coow ndax boo waxee dañ naan la am na licence. mais mbëru Pikine yi nañu xam ni parcelle ay ragal dëkkuñu fa. Eh, moom nag duma duma. waa li ñu def seen xel yi na daj. temps moom ñoo leen waa ñu ngi duma booy yi mais dañoo dajagul dañoo yeggseegul fi ñu war a yeggsi. ñu ngi jàpp booy yi di jàll nii rek mais yeggseeguñ de. Hmm. bis bu ñu yeggsee ci ci ci ci ñi nga xam ni jo gat sa gat say la dinañ xam ni fii dara du fi sedd. barke alxuraanu karim. kàddu yu mujj yi. kàddu yu mujj yi waaw santaat yàlla rek. Hmm. yàlla di gërëm Mouhamed Dioum. Hmm. borom Sacré Cœur Liberté 6 di gërëm tamit MP borom la ndaje. Mhm. waaw restaurant boobu moom xam nga mooy loolu maa gërëm joor tamit joor sama mag jooju nga xam ne moom it waaw ma benn yoon. Mhm. Mohamed Dioum moom suma mag la suma lépp la moom daanaka suma carrière ci moom la ne. Mhm. maa ngi koy sant bu baax a baax a baax. di ko ñaanal lii mu sumb nii yàlla na ko sunu borom may ndam lu met met te mu yegg ak jàmm ci kàttanu Seydina Mohamed. di ñaanal ñëpp nag di wax promoteurs yi nañ ñëw seet ma ma bëri gaay ndax damaa bokk ci làmb di ñaanal suma papa assurance fi mu tëdd yàlla na ko gënal fi mu jóge suma papa assurance Ouzin am nga ne kooku suma papa la barki alxuraanu karim loolu leer na kooku sama combat buñ ne suba laay bëri ci guddi lay ñëw suma kàll wax ma li may wax a pare dem ne ma normalement boo tëddee boo yeewoo war nga maa wax ma diw nii nga koy daane te barki alxuraan noonu laa koy defee ba may bëreeg moo moo moo tin damaa ñëw ba ci stade bi ñu tàgge ma ko. Mhm. barki alxuraanu karim te pourtant bañ nee gannaaw suba la combat bi maa ko yóbbu dalal jàmm. Mhm. damaa ñëw ba ci biir stade bi yëguma ko ndeke sama ñu taxaw ci ci cumukaay bi yëpp yëg nañ ko mhm. waa waa cumukaay bi waxuñu ma ko de ñoom Ippo Ngari ñoo tudd turam ci ci kii bi daan ne suñu papa assurance dañoo yëg ne nelaw Ouzin barke alxuraanu karim ma mel ni ku nu rey ci stade bi mënal tuma sama bopp lu bari ma delluwaat sama cumukaay toog di jooy ci petit ñëw foofu di wax ak man. Mhm. Modou Body ngaax xala nag làmb jooju mënoon dama cee daan jël bu gaaw mais maa ko mayul buntu boobu. Mhm. mais maa ngi koy ñaanal bu baax sam sam papa assurance. di ko ñaanal yàlla na ko yàlla xaaree àjjana. ndax borom baax la te dafa marqué empreinte am ci làmb. Mhm. ñëpp xam nañ ko. Mhm. mais CNG xaalis bi ñuy dagg mbëri paa di feebar ci làmb ji nii. nañ leen ci faj. parce que xaalis boo xam da nga koy dagg te kenn xamul fu mu ne. Mm-hmm. barke alxuraanu karim buñ la waxee ne la CNG mi ngi jàppale jàppalewul benn mbër dal day mi ngi mi ngi mi ngi bëgg a rey ñu wax ko ca ay xale lan nag mais nanu wax li nga xam ni mooy dëgg nan ko wax CNG barke alxuraanu karim na ñu leen di ñaan nag ñun seeni i raq lañ. Mm-hmm. ñu leen di ñaan ke yàlla rek tax ñun amaguñu cent millions amaguñu cinquante million mais nan ñu suturaal rek te yàlla tax maa ngi bëggee yëpp nag di la ziar di ziar waa unité 1 ba 26. Mm-hmm. ñëpp maa ngi leen di bëggee. di leen wax ne leen nan jàpp rek te xam ni day ñëw léegi léegi incha allah ak mafia bi waa dox bi ñoom Taïba Cheikh Mbacke ñoom Papi Diak. Mhm. Diak suñu président éco boobu. Mhm. waaw ak waa éco yëpp ñoom it ñu ngi leen di ziar jaajëf. ñoo ngi leen nuyu baax a baax di leen jaa jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon ak yeneen mbër ci jàmmaarloo jaa ngeen jëf.